asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér ci kilifteefu sëriñ Abdou Salaam Jenn xalifa sëriñ Isaa Jenn waaye ci njiitul sëriñ Basiru Jenn xalifa sëriñ Baara Jenn sëriñ Sidi moom sëriñ Naar jenn mooy am mbégte di yëkkati kàddu yi cant ak yooyu ngërëm di ko jëmee ci mbooleem jabatug sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gépp di leen fàttali nag bisub ñaan bi nga xam ne baaxoon nañ di ko amal wayjuram sëriñam sëriñ Naar jenn mu war a nekk fukki fan ak juróom ci weeru kor wi dëppoo ak bisub àllarba sëriñ Sidi nag nee na ginnaaw bu mu ko fàttalee boppam ba noppi fàttali ko ay rakkam mi ngi koy fàttali mbooleem taalibe bu aju njenne ak noo ci ajo rawatina ñi nga xam ne sëriñ Naar mooy seen bunt ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ko yëgal nag mbooleem koo xam ne sa wayjur daja woon na ak Serigne Issa Diène ci kër Serigne tubaa rawatina ñi nga xam ne seeni waajur yi àndoon nañ ak Serigne Bara Diène waaye nag ak ñi nga xamante ne bi seeni i waajur daja nañ ak Serigne Naar ci kër Cheikh Mahamadoul Fadal mi ngi ko yëgal it mbooleem njabootu sëriñ tubaa gépp bàyyiwul kenn rawatina nag xaritam Serigne am Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir Mbacké di ko yëgal it mbooleem njabootu bu soobee gi bàyyiwul kenn ak mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp mi ngi leen ko yëgal Serigne Sidi daal nee na mi ngi ñaan bis boobu nga xam ne moo di ñaanu Serigne Naar Jenn a doon àllarba fukki fan ak juróom ci weeru kor wi mi ngi ñaan képp ko teg sa tànk njenn yàlla yàlla faj say aajo ci koo xamante ni bii fekk nga bis ba te teew fa yàlla yàlla faj say aajo dañuy yendoo jàng alxuraan xasida salaatu ala nabi ak bernde ak turu yàlla wi bu ñu demee ba juróomi waxtu jàpp juróom-benn sii Sidi dana génn ci penc ma ànd ak rakkam yépp nag ñu waxtaan waxtaan wa nga xam ne moom lañ baaxoo def seq ko ak njabootu Serigne Touba gi waaye soññiwaat ci taalibe yi ñaanalantewaat ba déwén di ci ñaanalaale nag. ak di sàkku ci képp ku jàng alxuraan ak xasida nga fasaale ko ci sëriñ Abdou Latif Jenn mi fi nekkaloon sëriñ Isaa Jenn te way wàcc ab liggéey fekki way juróom wa fekki eh, sëriñam ba di ñaan suñu borom mu dolli ko ngërëmul yàlla akum njëgal te yàggal fi ak njabootam mi ngi séentu ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.